salaamaaleykum mbokku internetu 313 digital ñu ngi leen ñuy bëggee bu baax di amaan mbégte ñëwaat fii ni tey ci rond point Colobane bi ni ngeen ko gisee ñu war a waxtaanee lii di làmb bu jub ci Balla Gaye numéro 2 ak booy ñaa xam naa damay laaj gaa yi fii ni xool nan lañ koy waajalee incha allah. grand nuyu naa la. ça va fay naa la. tur bi naka la. El Hadj. Euh, lan nga ma lan nga El May wax ci Balla Gaye ak booy Niang. Balla ak Boy Niang daal sama xalaatu bopp. mooy ni Balla Gaye da koy daan daan bu gaaw parce que ñoom ñaar boo xoolee xool fu ñu jaar xool Balla Gaye daan xool Boy Niang lu daan pour man du combat ndax Boy Niang kenn la daan ku xaw a aju nii tuuti muy Sa Thiès sax pour man Sa Thiès ko mënoon ci boobu daa téyut rek waaw loolu daal mooy sama xalaat la yow fan nga teg loolu noonu ne daan da koy daan daan bu gaaw parce que tey jii nii boo xoolee booy Niang màgg na après seetaan nga seen euh, face à face bu njëkk fële ci Sorano lu mu ko indi. waaw léegi yow nan nga bëggee wax ne da koy daan daan bu gaaw kii nii di Balla Gaye. daan na ko sax te combat bi commencé gut. ni yow ku commencé di wax ay une minute laa lay may dem balaa nañ ko ay vingt minutes kay xam kooku daanu na. est-ce que est-ce la rek moo tax. stratégie la dañ kaa moom moo la gën a xam ne Balla Gaye ko man. Uh-huh. waaw te da koy daan. Hmm. waaw daan bu gaaw. Uh-huh. waaw. ngi lay jaajëfal. waaw jaajëf. maa ngi lay delloo siyaar Baye. Balla Gaye Boy Niang. Balla Gaye Boy Niang loolu du combat Balla da koy duma daan ko Boy Niang du dërëm day xàññi nii Boy Niang yi suba teeram lay fuuxal yéen Boy amul fit amul doole. Boy sos da ko daan ko ama neex ramassé ko teg ko fee ko Balla Gaye du moromam barke maam Serafal Balla Gaye bu tëddoon di nelaw sax Boy Niang mënu ko yee lu garaaw laa lay wax garaaw. ñaa xale la xale xale lan du Balla Gaye day du mag bay a gëm Balla Gaye dafa teel a gëm boppam doon xam ñun ay doomu géejawaay lañ say asar waaxi naan ñu duñu ragal xam nañ mbër dafa mbapat daan ñëpp barki Serigne Touba te bis bu téye Boy Niang Pikine bi ñu leen taasiloon cat ba cat ñoom ñëpp Balla Gaye da leen daan leen Balla Gaye du morom baay maa la ko wax bu la neexee après ko Balla Gaye dina ko duma daan ko Boy Niang bu taxawee laa muy doo minute Boy Niang dafa newoon da koy may une minute bu ñëwul mu fekk si ko mais changé waat na wax bi nee na ko nañ xeex vingt minutes bu la neexee. boo Niang du une minute yooyu ñun duñ ko ko may ñun ñoo fekk ji fu mu nekk du ma ko daan gën dama ko xam dama ko maîtriser. dama xam daanaan ji xoolal du ko moy une minute Balla Gaye moo koy fekk ci dumu ko daan ko te du paree ngeen vaar ko di ngeen ko gis Balla Gaye moo koy fekk ci dumu ko Balla Gaye ko ëpp doole ëpp ko ngemb ëpp ko xaalis gën koo feex Balla Gaye bu mais pression bi est-ce que du ëppee ci Balla Gaye bi nga dafa daanoon Boy Niang dafa daanoon Sa Thiès est-ce que du bëreewee ak loolu noonu Balla Gaye amul pression mënu am pression loolu du pression Balla Gaye bëre na fee ku ne dafa bëre ak Tyson bëre Yékini dafa toog 15 Balla Gaye bi mu ko nee nuj da daan daan Mohamed Ndao Tyson ñëw ñu ne ko boo ko jëlee gëstu idole la mu ne sama idole la mais dama koy daan jàpp Tafa Gueye mu nekk retraite mu ne du ma ko dóor damay bëree moom daan ko bëree Tafa Gueye dooley Tyson xam-xamu xam-xamu Yékini ak rapidu Bombardier ak ak ak dooley Bombardier ak ak rapidu euh, rapidu Baboy loolu nekkul ci Boy Niang li Balla Gaye Balla ñu mu daan ñëpp boo ko boolee nekkul ci Boy Niang barki maam Serap Fall mais nekkatul léegi de mbër mi léegi la gën a am doole la yow xanaa gisoo mbër mi dafa loolu job 3 heures 4 heures lay liggéey lay entraîné. Malibu. waaw si boo suuf si si suuf si. ñoom Asi génne génnee yu bari leer laa lay wax. Mm-hmm. mbër mi ñu gis booy Niang indi détermination ci open press bi. Boy Niang day xaañu bu amul fenn. Boy ñaa Balla Gaye naan càppaacoo bi ñëw na. Balla Gaye am na problème de sax. Boy Niang Balla Gaye lay supporté fekk Balla Gaye am ay gàllaajam mu dem jël xola mu dem ci téer yi wut ay sagaram boole ko ne nañ def comme kagalu Balla Gaye bi. ne waa ji dafa fàtte kagul bi baaxul. man dama yaakaaroon ni sëriñu Balla Gaye bi moo transhumé ñëw ci booy ñaare wala. ñoom kon la ñu bañ a gis te kooku moo ñëw stade ñu ànd ak moom gunge mbër mi mu duma leen daan leen barke Serigne Touba ñaari kagul lañ fa nar a gis moom. affaire bi nekkatul Balla Gaye booy ñaar la Mouhamed Sakho la doomu Balla Gaye kooku lañ war a booleeg booy ñaar mais pas Balla Gaye. barke Serigne Touba ñun dañoo bëgg mbër mi te dañ koo xam dañoo Balla dañ koo xam bu jeexee jeex na day xeex di bëree. bu jeexee jeex na bi moom booy Niang moo ko indi. day xaanju rek boobu lañ indi démb de Pikine. Boy Niang du dërëm waa Pikine ñun ñoo leen mën ñoo leen buñ bëree dañ leen di daan buñ fubalee ñu duma leen buñ basketee ñu gañe leen buñ buñ doon dox di waaxu sax ñu gañe leen ñun suñu maire waa Guédiawaye maire ak paa ñoo mën maire Pikine ak paa yi neexul dégg nag ñun seen bête noire lañ Boy Niang ñu wax ay daan naa ay Guédiawaye ay mbës ñooñu loolu yàgg na Balla Gaye li mu def Pikine mbëri fa gën a mag la jël daan leen ba pare ko gas ko suul ñun ñu ngi soog a commencé bëree bi te Boy Niang tapet la amul fit Boy Niang day la amul fit wax jee nekk nii rek ya barki Serigne Touba Mbacke bu bu boobaa dina xam ne ah xorom xorom xorom kenn ko jaay géej bu pënd bu wulee bu pënd bu wulee dinañ xam ne xorom kenn du jaay géej Balla du seen morom. bëre bëre lay jeexee wala ci xeex. lépp sëñ bi kii dama koy damay su ma jógee bu arbi ne pipe ma jamal ko su ma jógee ba wàcci barki Serigne Touba ba tibb sama suuf du taxaw c'est que du taxaw Boy Niang du taxaw ba xalil tëgal ma xalil ba xalil tëgal ma gi jër gi jër gi <laughs> sant naa la grand Balla Gaye Boy Niang Balla Gaye Boy la Kolobaan di jaay dàll wante day muñ ba beneen Balla mooy muñ waaw teg loolu fu ma teg loolu daa tolloon ci guddeem di daan ay grand frère am ak i moroomam waa fi mu toll nii booy bi dafa taxaw pour jël ndam li da koy may chance am mu jël ndam li waaw loolu laa koy ñaanal yàlla parce que ñun ñoo bokk Casamance. léegi ñu gis ne booy Niang def na dugg na ñaari yoon ci cour des grands bi mais dafa échec tey jii nii yow boo ma nee Balla Gaye muñ tamit dina ma jaaxal de. dafa tin mënul Boy Niang daanu ko. Lac de booy ñaa Niang daanu ko léegi nan la ko nan la mën a daanee Balla Gaye non fi mu tol nii boobu ak léegi bokkut. Boy différence lan mooy différence bi. booy ñaa dañ koo booleeg roi. te Balla yorul roi bi fi mu toll nii waan roi la. yaa ngi dégg uh-huh. fi mu toll nii lu ma la wax rek moom mooy muñ. Hmm. parce que lu tax mooy papaam ci boppam. maak moom ñoo bokk ci ngay joor bi njoon na chaque jour dañ doon daje ci féeri bi. fu papaam doon dem est-ce que mi ngi fay dem. est-ce que paay bi fu mu doon dem ci Casamance. Balla mi ngi dox foofu di fa dem. ah defe naa mi ngi fay dem ndax saa yu waxee gërëm waa Casamance. waaw mi ngi leen di gërëm waa dox bu papaam doon dox biir Casamance est-ce que mi ngi koy dox. waaw ah, loolu dese na waaw. voilà man nag moom maa ngi dëkk Casamance. waaw seetaan nga démb open press booy ñaar. non jotuma koo seetaan nag xam nga ñun dañuy guddee wàcc. waaw moo tax xam nga sooy seetaan. seen face à face bu njëkk bi seetaan nga ko Sorano. waaw seetaan naa ko waa nag moom ci jëmu boppam. sa waay soo xoolee seen taxawaay rek nga xam ne ne sa waay day muñ. bi yéenewu ma ko nag waa day muñ. day muñ waaw day muñ joxal sa waay. Maalo yaa <laughs> wax kontaan naa ci yow. <laughs> fiyaar naa la sama. da fis naka mu rak nga. sama rak loolu yow moom ci ñi ma yar nga bokk. waaw loolu moom soo ko defee moom dina ma neex trop ndax sama booy nga booy bu yaru nga. tey boo ma téye micro ma wax moom dinaa wax ndax sama rak nga. waaw tey dama lay laaj Balla Gaye ak Boy Niang. non Balla ak Boy Niang moom. combat la du combat ndax bu fekkee affaire u kàttan wala affaire u doole Boy Niang moo gën a féete ndaw Boy Niang moo gën a féete ndaw uh-huh. man Balla Gaye sama nijaay moo koy tegal Adama Ngom si yaa ngi comprendre mais doole bi Balla Gaye uh-huh. ak bu léegi bokkatul te Boy Niang dafa nekk si yoon uh-huh. Boy Niang mu ngi liggéey mun ku daan Balla nag da ngay wax lu la neex mais Boy Niang mën na daan Balla Gaye mais est du ko jaay expérience parce que Balla Gaye vingt cinq ans mu nekk roi des arènes loolu tamit yéeme na te def na fi ñaari yoon test laa ko mën a tuddee contre Tapha Tine jàllul contre Lac de Guiers jàllul lan nga ma a wax ci loolu. non Balla Gaye c'est bëreem moom mooy loolu gars yi ba dañu foog ne Balla Gaye moo ñëpp doole Balla Gaye yóbbu ñëpp doole gars laa jëm bëreem yëpp mystique la mais bu fekkee wàllu bëre bëre nii moog Boy Niang tak tak Boy Niang bu dëggalee boppam mën na daan Balla Gaye ndax am na kattan bi am na doole bi am na fit bi senegal nag booy dem nag il faut ñuy xel di wax sa gannaaw mais Boy Niang li ma koy conseillé na def ndànk am yar am teggin jox Balla Gaye respect jox ko cër gérer combat bi su ko defee day am ndam si Balla Gaye jamono jii nii ñu gis ne Balla Gaye li mu daan def bu njëkk moom la booy ñaari def nan nga jàngatee ñaari affaire yooyu noonu. mais Balla Gaye li mu Boy Niang def nii Balla Gaye loolu ko doon def. contre Tyson. fii la taxaw yuuxu Tyson yuuxu ko ak si leere ko këttan ko. mais Boy Niang li mu def nii Balla Gaye da ko doon def. Boy Niang am na droit def ko dafa yëg boppam. Mhm. Balla Gaye bi mu yëgee boppam. loolu la doon loolu la doon def mais nag Balla Gaye bu mu mer ci loolu. contre Yékini lu ne def na ko fi contre Baboy lu ne def na ko fi contre Tapha Gueye lu ne def na ko fi. léegi nag booy Niang nag am na droit yëngal. ndax Balla Gaye jaar na foofu. il faut mu def loolu. Boy Niang bu dëgalee boppam parce que sëñ Fallou day daan Balla Gaye. billaahi. démb ñu gis open press am Boy Niang indi détermination bu amul fenn kon instant yi gisoo ni confiance boobu noonu ëppul ci moom. bu dëgalee boppam. mën na daan sa kuréel Balla Gaye bu dëgalu boppam mën na daan kuréel Balla Gaye Boy Niang champion la. champion la man daal li ma koy conseillé ne gëm boppam respecté Balla Gaye zéro combat bi day daan Balla Gaye. mais dafa newoon da koy may une minute jékki-jékki nee ko léegi nañu raak vingt minutes bu wax ko lu ko neex. Balla Gaye da doon wax loolu lépp bi mu koy wax boobu mu ngi ci diggante. mais Balla Gaye da doon appliqué day wax loolu appliqué. non ñi mu ko doon appliqué ñoon dafa fekk mu nekk ay grand seen carrière fin léegi boo ñaan dafa nekk ci dëgg dëgg Boy Niang mën na ko def. Uh-huh. mën na ko def. Uh-huh. Boy Niang bu dugalee boobu da koy def. man li ma koy conseillé na am yar am teggin. Mm. ñi moo jox cër mu jox leen cër gérer combat bi. Uh-huh. bañ di déglu waxu Sénégalais Sénégalais boo dégloo seen wax doo dem fenn. gëmal li ngay gëm gérer li ngay gëm. Mm. point yi jeex na. yow nag sama rak nga boo ma téye micro il faut ma wax. kàddu gu mujj gi di la sant di la gërëm. fi ñu déggee TFM ñu dem ba di la fa dégg ndax yow booy bu baax nga. sama booy nga maa lay yar. derkale di sant ñëpp. di gërëm ñëpp. yow yàlla na yàlla lafal cat tamit yàlla na la yàlla defal jaamu ju bëri. yow ñoo far nekkal si jaam si kaw si kanam bul tiit di jaaxle aduna boo si nekkee. bul tiit bul jaaxle. gëmal sa bopp. bi dafa moom baatu gannaaw yaa ngi dégg. boo gëmee loolu rek baatu gannaaw bu ko bàyyi xel. gëmal li nga gëm si kaw si kanam. bul tiit bul jaaxle. booy si nga bu ragal. grand bi ngeen naan jaajëf. grand maa maam. non bala bala Balla da koy daan Balla moo ko mën. foo ko teg non da ko mën ci lépp làmb boole leen. boo ñaa ñaar defal la tegle. Balla ñëw daan kan Gris Bordeaux. kon xam nga dèjà làmb boolewu leen. bu doon làmb bu doon pare rek ñoom ñaar duñ bëre. amee garab ci kaw lay fekkante. non da ko may chance rek. da ko may chance mais ñun xam na ne Balla moo mën boo ñaa du benn sax. seraan nga open press booy ñaa. naa lépp day tekkatu xel. gis nga ko de. Bal ba seraan Gaynde gi gaynde gi tey la tey la Balla Bessane ko boo gi tey. li ñuy wax ni ñi ngay gis ñuy wax ñëpp ay daw katu la. day daw laaku ay ñëpp ay daw laaku la. mais yow boo ma seraan nga démb euh, open press booy ñaa bi ba pare tey jii nii. ak li nga gis foofu noonu tamit sa li nga wax nii tamit. man bi mënul def lu ma jaaxal. dugg seen. def lu ma yéem. lu ne wax na ko fi. ay buñ jëflantee ba pare te boo boo xaacee mu laal saako yëpp day daw. yaa yaa day daw ñun xam na li mu mënee. mën na may baala day sóob waaw yow yow gëm nga loolu yow. yow boo ñaaw waxal ñu dañuy reer ak noppi ah, ñoom li ñu fi wax lépp moom ak papaam ah li ñu fi wax lépp senegal yëpp di dégg nañ ko dëgal buñ ko dëgalee ku xef du gis jële bi uh-huh. barki borom daaru booy bi affaire yi baala ngay waxal da yow baala uh-huh. gaynde gu mag gi <laughs> bu bu amee laamu mu neex moom Balla du moroomu gars yi barki yàlla du boo amoon boo amoon lay conseillé Balla Gaye lan lay doon Balla amu ma dal lu mooy conseil lu mu def la mu daan def rek waaw tax na ñun ñu ngi si ginnaaw ñun wóolu nañu ko ba pare saa bu bëree suñu xel dal aw ma lu mu koy conseil moom xam na li mu war a def parce xam na ñun fi ñu koy xaar mhm. moom duñu rusloo Balla Gaye waxoon ne ay supporter am dootuñu ko yab non dafa leer saa ñu ko waxee ñu gis ko ah mhm. kooku xam nañ suñu mbër mooy kan parce que ñun dañ ko yàgg a topp depuis bu muy bëri mbapat ba léegi ñu ngi si ginnaawam xam nañ ko bu baax baax kooku champion la barki yàlla mais Boy Niang mënu def la lun bett Boy Niang lu mu wax contre Tapha Tine contre Lac lu mu wax Tapha bu xaacee mu daw laal saako yi saako yëpp laal na ko mais tey jii nii est-ce que Balla Gaye bu ñëw la premier janvier du indaale li nga xamante ne mooy kii dafa daanoon sama raq pression boobu noonu est-ce que mag la Balla du ragalul loolu Balla mbër bu mag la loolu dépassé dépassé na loolu uh-huh. Balla dépassé na fu muy yénoo kon du ñëw ba fii di ko doog a yanu. Balla kon baadu bés bi da koy bàyyi ak booy bi. bu ñëwee li mu war li mu daan andi rek lay andi. Balla amul dara lu muy bàyyi ak booy bi mais jamono wax ji la ko bàyyal la. voilà foofu laa bëggoon ñu ñëw jamono jii nii. Balla Gaye tek tekkaaral bi la def li nga xamante ne moom moo ko daan def bu njëkk booy ñaa loolu la indi dinaan ko dama lay def lii heure bii laa lay may waaw bo moom da koy wax ji rek xam nga moom nee na moom ñooy wax ji ñoom dañ ne ko Balla booy booy signature rek yow day wax parce ko wax na ko bàyyi wax ci de mais bàyyi ko combat bi wax ji lan ko bàyyal rek mais waa ji da koy duma da daan yow gis nga gan gi yow gis nga bërëb bi est naa ko baal bu nga seetaan ko tey boo ko selaanee fàtte booy bi démb de moom booy ñaar moo ko gisee moom dama ne teeru Balla Gaye am nañ tey tey ak tey ñun la tey yéen la tey ñun la baal bu nga seetaan bërëb bi ah. 3 heures 3 heures ñu daje géejuwaay non dem pare nan ñu ngi nii ku yaay nii taxaw dañuy dem dafa leer combat bi kon tey ñu daje acca gaynde gi bilaay doomu duba lees doo wóolu barki borom daaru ñoo far yow day leer nan ko waxaat fii bu neexee yàlla ndam rek ah. dimanche incha allah ñoo mën jeex na du sax benn jaayaf gaynde ñoo far yow mbokk internet yi dégg ngeen réaction wu sénégalais yi rawatina Maguette Mane yi nii ñu fekk fii nii ci Colobane xam na lii leen leen indiloon seen reportage du jour dañ leen di bàyyi ba beneen yoon amaat beneen dig daje ci beneen reportage jaa ngeen jëf.